bismillahi rahmani rahim wasalallahu taala ala sayidina muhammadin wasallama tasliman bayyana lil alimu wal xabiru tabyina man tadbiruhu tadbiru suñu boroom subhanahu wa taala lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf lu mu mën a doon lu am ruu ak lu ko amul nguur yi nekk ci kaw ak yi nekk ci suuf moo leen moom lépp moom la ñuy sàbbaal telle est l'absolue vérité, la vérité absolue. Glorifie donc le nom de ton Seigneur euh, le sublime suñu subhanahu wa ta'ala Mo jitu, Manam huwa al awal wal akhir. huwa zahiru wal batin <laughs> Moi ki Don banopi, don ki feeñ waaw doon ki feeñ ji nag loolu danañ wax kanam ki nga dara umbu ko allamul moom subhaanahu wa taala waaw ku tedd ki wax ne àllamtenil ba ci ig fi nii loolu it danañ ci mus a wax bis bis bu nu eggee ci Bamba force Bamba force ca kanam Bamba force dina am xam nga de di ñu naan Bamba fépp Bamba partout Bamba everywhere ak naan Bamba merci mais Bamba force dina xew ca kanam hmm. Bamba force waxin la rek Bamba force bi comme dina xew ci kanam te xewagul bis bu xewee bis buy xewee ci la interprétation bi jot Bamba force boo ko déggee force bi danga ko mën nga koo jox forme négative waaye déedéet buñ ci eggee du doon du du négative waaw parce que dafa am interprétation ci ci ci ci geste waaw après l'intention dafa am interprétation ci geste ak façon de faire ak façon de parler expression waaye nag comme lu nekk euh, ca kanam la moo tax bis bamba force bi ca kanam waaw bu ni ca eggee ci la ñuy interpréter yi yàlla ni mu bindee asamaan yi ak suuf ci juróom benn fan dal di bind arash ba nga xam ne mooy base am bu doon am base mbaa fief foofa la arash bu doon am fu muy trône kon foofa la parce que dina firi trône d'une part al arsh moom al arsh dinay firi maanaam euh, trône hmm waaye nag suñu borom moom planet e pays e, hmm? la planète la ñi fi nekk planète loolu moo tax rek ñu wax fii nii bu doon am base wala muy am fief noonu nga xam ne noonu la bindee asamaan ak suuf ci juróom benn fan dal di bind aras noonu la xamee quantité matière yi nga xamante ne bi ci domaine yépp waaw ci domaine yi nga xamante ne bi da ko dénk malayka yi ñu koy saytu te mu concerné maanaam planète bi fii suuf si mana planète bi waaw non lay xamé lepp dal ndax moy alamul khuyub yi nga xamanteni bi mom yi ser seni service ak niñ ordone di ordonner directive yi nga xamanteni mom waaw mom lay wax jibril jibril di len ko jox mala ku ci nek ak sa mission ak say say ki say troupe say équipe non la suñu borom di xamé lepp bayanan bu dé ci sunu souf si li nga xam ne mooy ciy génn muy pétrole yeeg gaz yeeg yeneen ressources yi yépp quantité bi muy doon ak ak yi mu ci namm muy feeñ ak yi ci dul feeñ ak yépp maanaam yépp ci turam wi azahiru wal baatinu turu al baatinu wi ci lay nëbbee yi muy nëbb turu azahirum wi ci lay feeñal yi muy feeñ moo tax pétrole beeg gaz beeg jama ak or ak et cetera et cetera yi muy wàcceel doomu aadama yi daal te muy jóge ci asamaan si ak yi muy wàcceel doomu aadama yi muy génneel doomu aadama te muy jóge ci suuf si bokkut ak yi mu koy wàcceel te muy jóge ci asamaan si waaw yi muy jëlee fii ci suuf di ko yóbbu ca kaw moo xam jaamu yàlla la wala ay asraar yi muy yaax maanaam ay mbóoti kii maanaam fi ñu toll bu tawee ba noppi taw bi bu tawee ba noppi ndox mi li ci nit ñi war a jariñoo bu ñu ko jariñoo ba noppi sirop bi bu delloo bu delloo ndax suñu borom bu ko neexee ndox mi wàcce woon rek bu ko neexee mu defaat ko vapeur mu dellu bu ko bu neexee wàccewaat ko maanaam daal moom lu ko neex daal lay def waaw yii jóge ci asamaan si moo leen di génne di leen indi yi jëm ci asamaan si moo leen di jële fii di leen yóbbu yooyu nag ay jaamu yàlla gu nangoog yeneen a ngi yeneen a ngi ci ndax dégg nañ ko tedd kii wax ni moom lu mu bind lu nekk malaayika yi dañ koy jël di ko yóbbu aras ak kursi yu moo tax nag suñu borom subhanahu wa taala moomu moo nu bind nag def nu ay xeet wute lenu waaye xeet wu nekk rek yebal na ci ñoom ndawam ab yonent mu wax ni yàllaa ma yoon yónni yoon wi moo jëm àjjana yoon wi moo jëm sawara yoon wi moo jëm laaraaf waaw xeet wu nekk peuple bu nekk yónnee na leen un message boo xam ne daf leen di génne ci leer daf leen di génne ci lëndëm yóbbu leen ci leer bu dee noonu waa senegal nag lu nu dëgër dëgër dëgër dëgër bopp leere xasaay di moom ñi ngi wëree ñi ngi ñuy wër ci wet gu nekk waaw te borom a ni isa katabtu taza arshullahi bu bind daal aras googu ñu waxoon arasug yàlla googu moom day tremble waaw bu ko defee nu ñëw ci njaboot gi njaboot gi nga xam ne man man lañ def may seen jëwriñ ñuy déglu sama kàddu dafa am occasionnellement lay waxee ñoom lii may wax ak ñoom mooy politik bi xew na ay slogan xew na te jamono bi ñu tollu man dama bëggoon ñom ñepp ñu soutenir ma ci diwanu bamba fep waaw ba tax na yi nga xam dañ koy bind ci t-shirt yi xalé yi di sol man lima ma bëgg moy ñi nga xamanteni bi ño and ak man ci diwanu bamba fep bu kenn solati t-shirt bu ñu bind lenn bu démé ba mënta ñak dal na doon bu ñu bind jërëjëf Serigne Touba wala ay way ay concept ak ay parté ay slogan ak ay yoyu ci t-shirt moom bëggatuma sama kenn sol ko waaw sama baat ca kaw nag léegi li ma bëgg daal mooy bu fekkee mun munte ñàkk te dañ koo solluwul sax jamono yi solluwuñu solloowuñ kenn ay t-shirt waaw jamono yi solloowuñu kenn ay t-shirt solloowuñu sécurité ay tenue militaire solloowuñ ko kenn dafa am phase bu ma dugg bëgg ñu solidarité ci ak man loolu na ko ñëpp dégg waaw jërëjëf Serigne Touba moom day lu yéeme ndax soxna may Maymunatu Suxra soxna may Maymuna bu sëriñ tubaa caatum sëriñ tubaa daf ko daan ñawlu ci yéreem waaw ginnaaw bi njuufa lañ gis Faatumata Bintu Juuf di ndey alkaati Bamba fépp alkaati Bamba fépp moom lañ gisaat mu defaat mu defaat ko fi loolu nag ñi nga xamante ne bii mën nañ def may seen jëwriñ ñooñu laa ko wax waaw